cey Talla Ndiaye Talla mbër bu tolloo fii lu mu war a yëg. ah fii ne mooy moom mooy bouquet final bi li ngay wax bouquet sangu rek moom kuli fay xool saako yi. gàmm it moom mi ngi préparé moom mi ngi sangu rek. mais est-ce que mbër dañoo war a dem Màkka wala damaa gis fan yii dañoo xewal li nga xam ne moom moo di semisu alaaji nan la demee noonu Babacar. doy na waar xam nga mara rek lu ne ñoo koy digal Talla. damaa yaakaar nañu waajal Màkka. bu heure bi jotee solal lii. Ah, bu heure bi jotee sotteekoo lii. gis naa ko fi ñaari yoon. xool leen ñoom ñaar ca roq ba bu heure bi jotee naanan li ko léegi jaagu mbaan di ñëw cey Coly Faye numéro 2 mbër mu bari mbër mu bari yëngu-yëngu la Burxaan Wàdd da ngongu taxaw mënaat sa moo nekk nii ndaysaan père Bour kii moo yor booy ñaa bu dëggool père Bour a ngongu kaay. sa njaay xiis a ngi lii moo di xiis Babacar lan mooy xiis xiis boo demee ci àll bi danga ko fay fekk ee eh, xiis a ngongu xëddeen lay doon am na la mu yor di daw di wër ak moom géew ba koli bi kolee ngi daw di wër géew bi yor ko ci tànk bi a ah, lii doy na war Lamine mu ngi daw ak moom daal seet arbitre baa ngi leen di seet Talla Ndiaye ee eh, tey la tey la arxeme Talla Ndiaye bisu 4 avril la jaawale laay bañ Talla Mballo jaawale ndeysaan tey la 4 avril 2019 Lamine 2019. gars yi défilé nañ ci ñu ngi nuyu suñu mbokk militaires yi. militaires yi génn nañ. paramilitaires yi. policiers yi génn nañ. sapeur pompier yi. gendarmerie gendarmerie nañ. et douanier yi Lamine. yow sax génn nga ndax yaa ngi ko eh, Mar Diop. mënuma bañ a défilé Lamine dañ cee bokk. foog ñu défilé. waaye le CMK le général Cheikh Gueye. moo yilif armée bi. moo wóor ñu ngi koy nuyu. ziar nañ ko chef. di nuyu Augustin Tine ministre des forces armées. nañ ko. et officiers yi sous officiers yi. di nuyu ministère président Macky du la def ministre de justice. ah Lamine déet loolu day diis. wala nga communication. wala communication gën a wóor. religion bi baax na baax na. waaye arbitre ba ngay laajte Lamine xool ko. eh borom lumière bi arbitre soufflé na borom lumière bi lamb ji lu na nga go droite door na ko jàppante Madou Madou bu mu rocce lay door door laa ilaaha illallaah ñu ngay xeex. bu leen jaawale lii eh, Coly Faye Coly Faye jël nañu Coly dañ lay daan Coly Coly bañ na laa ilaha illallah Coly Faye génn na foofu eh, ñu ngay dóorante ca suuf jaawale laay bañ tey la 4 avril jéey borom 4 avril nee na le premier avril la juddu jéey seen say 4 borom avril kon làmb ji tey avril yi neen la e Fatou doomi Abdoulaye Ndiaye moom itam nañ 4 avril la juddu 14 avril bi àla daw mena waaye ñaari mbër jàppoon nañu waaye 13 avril Assane Ndiaye Baol production ambulance bu Thiès wulli dee bu bawal ndaw tarte metti waaye e jamaïcain borom la 14 moom tamit du yomb la ilaha illallah laay Pythagore la 13 Assane Ambulance bu Thiès wu leader bu Bawal. lu tooy tooy waar. maanaam ma niroo bëree. waaye cay Ambulance. moo gaaw bëree. laay ah lay lay la laa. waaw loolu loolooy combat. combat bu rëy baa ngoon ca bés ba. explosé ak général Diouf. général Diouf bu mbuur lu tooy waar. explosé Tapha Tine bu école de l'ISAC ko xam-xam la mujj a daan ca la mujj a bëree fii jënd bu rëy. général Diouf fii bi mu fiy jógee dañ koo daan par décision arbitrale. laa ilaaha illallaah drapeau Ablaye Lo bu Bargny Ablaye Lo bu Sëbi Xotaan. bu sax bu sax a sax a sax ee jaawale wuurul ñu nga ca de ñaari mbër yi ah, moo fi gën a metti ci put lañ la koy def. laa ilaaha illallaah ser su jom nuyu naa la sama xarit sama doomu ndey sama rak. l'international Youssou Ndoye eh duma la fàtte borom France atena toppal ma loolu Talla Ndiaye wax na ak ñoom lu xew lu xew lu xew arbitre arbitre lu tax nga atte soufflé waat na lu tax mu atte la ilaha illallah door na ko mu daw jëli ko da ko laaw góos door na ko droite yee barkil ma dal na Coly Faye loolu wër jël na toog na toog na laa ilaha illallah daan na ko ba duurati ko daan ba tat waaye lii lan la laa ilaha illallah laay xeex bi xeex bi Talla Ndiaye ñu ngi dóor Coly Faye ñu ba léegi waa lii lan la yee kii dinañ ko rey eh, eh, ko rey Talla Ndiaye eh waay lii doy na war waa Lamine Tito kii dinañ ko rey génn reculé foofu liñ ko dóor dafa dal bi mu ñëwaatee bëgg def action xam na ne boobu jël na coup aha waaw bilaay waaw